Thank you. merci beaucoup mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu ki nga xam ne moo waral lii lépp muy suñu bàyyi di suñu kilifa di suñu sëriñ waaye di suñu amee ci politique suñu sëriñ ñu ngi Serigne Moustapha Ciss jërëjëf. Serigne Moustapha Ciss jërëjëf. Serigne Moustapha Ciss jërëjëf. ndax dañoo la bàyyi yéen ñu kilifa. bokk ci kilifa yi nga xam ne dañuy réew mi. xam liñ seen responsabilité ci réew mi. ba pare assumé responsabilité boobu taxawu ko. sëñ bi nga baal si yàlla yàgg ci ànd ak wér yàlla may ñu mën a mën a mën a yegg bu ñu yàlla di ñaanal réew mi. sëñ Mame Cheikh capitaine bu ngeen ngërëm sëñ Ababacar ak waa kër yëpp ñu ngi leen di jaar ba ñu. di wax ak mbokk fii ni am nañu mbégte ci suñu ànd ak yéen waa Pire te ci leen ko taxawal nag bu fekkee ne jaam ñëpp amit ci wax na lu bëri ci moom waaye taxawal ko taxawal boo xam ne taxawal bu ànd ak jullité la mën a nekkoon biir ci coalition waaye mën a nekkoon coalition bi ci biir ndax xam nga ay kon PDS ñëw pour célébrer l'un des plus grands partis politiques du Sénégal en République di célébrer seen ñaar ak ak juróom ñu ngi leen di bëri na tey ñu nekk biir biir sàtt yi vingt cinq ans la ñu am wala ñu yéeg seen nekk ba ñoo xam Sénégalais yi tuuti ci li ma xam am ci biir parce que Sénégalais yi am na ci ñoo xam ne léeg-léeg ci boo waxee biir dañ koy jaawale ak ay wax président biir kii bi am ay jaay yoo xam ne xam nañ ko est l'un des plus grands partis politiques du Sénégal. dama ànd ak kii ba bi ñuy commencé ànd am na lu tuuti ma amoon ci biir waaye ci ànd bi laa toog ci nguur yëkkati li Sénégal am ci ñu war a gën a ràññee ci ay intérêt ay cadre les mieux formés au Sénégal et dans le monde du sur l'éducation du ministre ñi ñu ko ñu doon porté te ci nekk ci yooyu ak seen doon mooy politique la ñu ko bëggoon mooy politique mooy jël loo moomu digeloo gëmu jël alalu réew mi ak manque loyauté nekk na loolu lu politique gis nañ ko ci suñu moom moom suñu ànd bi di jaaxal leen suñu tàcc seen tàcc seen tàcc yu bari. da ngeen ne quand je filme je m'engage mais quand je m'engage je fuis. quand je filme je m'engage mais quand je m'engage je fuis. bi ñu ñëwee fii ci ci doon te seen i góor respecté ko plus ban góor moo ko plus que le vert et le blanc. Ces couleurs, ces couleurs de notre religion, mais ces couleurs de la Casamance, parce que nous voulons xam nga tey ci dugg ci seen ci sax bi boo moytuwul nga ne est-ce que Aliou Kaaga moo fi nekk ndax ci yow ñu bokk mu ne dara dana ko wax. moo tax bëgg nga leen wax ma ne la yéen askan bi jaam yi jaam yi nga koy wax tout le temps ne seen ñu ko la ngay def def leen ne sur le terrain moom la ñuy def moom koy def bu nekk. moo tax disaay yi comme ci bàtt xam nañ ni suñu ànd bii ñu ànd Yewwi Askan Wi ànd boobu mooy jox Sénégal ko kaw. est-ce que loolu. est ce que gëm ngeen ni dans douze mois mu door a yàgg dans douze mois mu door a yàgg kañ fii ci Sénégal ak ñi ñuy àndal fii ci Sénégal est ce que xam ngeen ni génn xam ngeen ni génn ngeen askan bu dooree yàlla boo xam te ni Moustapha bi lay judd wala Ousmane Sonko wala Khalifa Sall wala Malick Gakou wala Tënkee Fap wala Aïda Mbodj wala kooku di doon waaye daal mouvement bi ñu toogal di ko def rek maa jëm ñu moo tax nag dinaa daal sama wax ci tàngaay bu war a ne xam ne mooy Macky Sall xam naa dégg naa ni adduna yëpp moom ko jagleel xërëm ak xar ba suufa bu dee ay xërëmkat yuy wër ba indi ñoo ko doon doon mën na toogaat ci au delà du vingt cinq février deux mille vingt cinq ndax xam na mel kat koy waxee ba dëgg bu dee yi ko wër ci ay foto ko doon loolu mën na sukkandiku ci armée ak gendarmerie particulièrement ci gendarmerie ak police ak justice pour convertir au-delà du 25 février ak affaire boobu. Macky Sall li ma ko wax mooy ay mbiram la ko def tàkk. bu dee ko xool moom moo ko ci xulaar graphique. bu dee ko xulaar moom moo ko ci promoté te terminé. bu dee ko promoté moom moo ko ci doola comme banque. bu dee ko doola moom moo ko ci promoté à banque. ñu koy gis ñoo fekk ñoo ko fas yéene rek mooy jawe yi over. ñu ngi lay waxtaan ak pare ñu taxaw di ko wax sant. kon nag bu may laajalee man di saa yàlla naa toll ay nit ci réew mi. yi ñoo yëpp yi ak leen yi ñoo yëpp douze ans jaay ak essayé toroxal suñu waaye nag am na benn mbay boo xam ne maa ngi koy wax Sénégal yëpp ñu lu am solo la paix et la stabilité dans ce pays mooy suñu matière première bi moo ji ci pétrole moo ji ci gaz moo ji ci or moo ji ci zircon Macky ay riches ay juif ay sàmbaboy dugal leen di jaxasoo police yor ay raas grenade yor ay fetal di ko tuuree ci Sénégalais yi loolu kenn ko mën di tuuree ñu ngi koy tàggat pour première fois ba tey ay militants ndax ku xool li dañu xam bu doon créé ay militants yomb na lool tax daal ñu ci nekk ñëpp dañoo nekk seen digg doole entraîneur bi ba mu mën a koo ci joxoon kàddu la ñu ay militants ndax li nga keroog ci soxna ay militants partisans yor ko ay réew ak ay bëtal ba alkaati yi yeneen yi ngeen jàpp ne faaw ñu jël ma dugal ma ñoom seen seen bopp doole pour que ñoom ñu yéen ay bëtal loolu gàcce Sénégal la te maa ngi gàncax bu ndax benn bis bu laalee benn ci biir bi nekk na topp bala dox ci di dal dafa am benn laa ci biir ko comme bu ñu ko jàppee ñu ko loolu mbokk biir rassemblement bi nga ma tey waaye ñu nekk ñu def ci seen rassemblement ndax message que nous lançons au monde entier que Macky Sall est politiquement et sociologiquement minorisé dans ce pays. bu si toogoon ba deux heures du matin kenn du si jóg dem lool waaye moom saa yu dajale ay nit balaa ngeen ñu jël kàddu gi ñu dem benn waaw parce que les pour transporter ak ñu ñu koy ay deux mille francs ak ay cinq mille francs ñun bokk na ñoom ñun bokk na ñun moo tax nag loolu xam nañ ko dama ne kenn doon na sëñ Moustapha ñu koy fay pour ñu wuyu sëñ Moustapha kenn doon na Ousmane Sonko ñu koy fay pour ñu wuyu sëñ Moustapha xam nañ ni ay militants dëkk la ñu am bu ko daal ñu ñuy transformé ñuy nag ñu koy festal moo tax nag ñu koy daaneel nii nga def rafetee tey ci géej waay ni mu rafetee woon dara ci Kër Massar ni mu naroon représenter Mbacké ñu tiit ko interdire ko Yewwi Askan Wi dina jàpp kat nii bu ñu ñëwaat ci ndax xam ngeen ni capacité bii kii am Pastef am ko taxawu am ko keneen keneen am ko amul benn lu mën a continuer waaye dañoo bëgg rassemblement boo xam ne cent ba xam ne xajul ci moom ba Macky Sall xam ne ci moroomam ba Macky Sall xam ne jeexal na ci réew mi ba Macky Sall ne ci bu jógee dox ko falo dara mu ko gën bu bëgg du damaa du am lu gën